mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci génnuk àdduna sunu waajur wu tedd wi muy Serigne Saliou Touré bu Thiès nekkoon koo xam cheikh la ci waa kër Serigne Touba radiallahu anhu nekkoon nitu yàlla nag nekkoon yarkat ku nëppi koo xam ne ñëpp d'accord nañ ragal yàllaam nekkoon ku jege woon lool Serigne Abdoul Ahad Mbacké taala anhu mu tegoon ko fa fi nga xamne moy mooy dan ko fa fek mu nekkalon fa nekkin bu rafet ke Serigne Touba waye amone alaqa bu rafet nak ak kër serigne Hadji malik rawatina al hadji Abdoul Aziz waye amone kulere go xamne nak dafa dox digantem ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin radiyallahu taala anhu ni amone kulere yu deugar ñom ñaar Serigne Saliou Touré nekkalon wa kër Serigne Touba Thiès te ku nekk xamne ne ak Tivaouane ben la waye mu daan diisoog serigne abdou Aziz Al Amin ci lépp lo xamne ne daan ko def serigne abdou Aziz Al Amin tam amna ci yo xamne ni ci mom la ka daan jaar yo xamne du jaar mu yegg Touba serigne abdou Aziz mom la ci daan waxal. daan na ko ganis it xam témoignage bu mu defo ci sëriñ Abdoul Aziz it waxoon digganteem ak moom dinañ len baye ngeen déglu kàddu yo nga xamne mom la waxon ci digganteem ak serigne abdou Aziz Al Amin ay soppe lañu won ay xarit lañu won waye liñu bëgg wax rek moy ki dem muy Serigne salih Touré ku sell la woon turam woyoonu ko euh, ku ku ku ku doon rafetal la ci diggante tariqatul muridiya ak euh, tariqatu tijaan ci rafetal ko weesuwul di jëflante jëflante bu rafet diggante kër Seydi Hadj Malick ak kër Serigne Touba radiallahu taala anhu nekkoon koo xam ne tegoon na tànkam ci sunna lool doon yar nit yu bëri doon ko woowee nitu yàlla ndax ni mu noppee woon ak ni mu nekkoon sufiyanke ak ni mu nekkoon jaamukatu yàlla tabaarakallaahu euh, te kenn daawu ko dégg ci yëngu-yëngu àdduna yi kooku nag moo fi jógee tey radiyallahu anhu ñi ñaanal ko yàlla njéggalu borom bi ak euh, leeru borom bi fa mu dëgg dëgmal muy yowmal xiyam yàlla na fa fekk yërmande yàlla yàlla na ko yàlla booleeg sëriñam Cheikh Abdoul Khadim mu teeru ko yàlla wane la ko xaritam ba soppeem ba Mawlaaye Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin ñu gisee di doxantu ci aljana ya ñu ngi koy jaal mbooleem umma islamique bi yëpp di ko jaal mbooleem fu sénégalais nekk ndax tey diine ji bu doon day wàññi ko wàññi ko na ndax ci jóge du ko tuuti borom mi responsabilité la woon ci yar borom mi responsabilité la woon ci defar ruux borom mi responsabilité la woon ci jàmmi réew mi waaye borom mi responsabilité la woon ci njub kon nag ñu ngi koy jaal ñëpp waaye di ko jaal Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy fii toogal yoonu murit yëpp di ko ko jaal ndax moo ci ëppale tey ci xew-xew bi waaye jàll ko Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane ndax wëllëreem dem na euh, soppeem dem na ku bëggoon euh, njaboot Seydi Hadj Malick moo fi jég jàng bi seen rajo bi ak si si daaw gànna si nama maa ngi parewaat ngan bi incha allah ren lay ëpp taalibe yi nekk ay gàmmaram da leen ne euh, représentant ba benn la ak ñee ko mbuur dem leen bu dee baax bu dee lu man di doon dem leen mooy koy toppatoo nun day noonu lépp lu aju ci wet googu mu di ko toppatoo xanaa doon jàmm ngi gën a am lépp ngi gën a dox gën a jëm ci benn caari jën yooyu ñëw fi mun maa fexe fexe fexe ba ndi murit waaye nag man nangu bañ mën a ñëw fi man moo gën ma jàgg ba saa marum julli di ma tegg dara nekku ci boobu njëriñ dara fexe ba sa marum julli di la tegg moom musiba la te ba la boo ko teggee ci lii tëb boo xëy doo mu tegg la waaw nga bëgg rek nag ab jaxal wala nga bëgg am ndaw ka kon nag foofu nag nan yàlla gënal nag suñu bakkan yi yàlla nanu gënal bakkan yi nanuy ànd bu baax tey déggoo bu baax murid yi buñ ko doon seet la lu ma leen fàtt waaye nañu baax murid yi fii nag buñ doon seet jàppee murid yi seet ci murid yi nag lii li ci Baay Faal Baay Faal yi sax am nañu fu ñu ci seen imam ñëpp ay kii yàlla lañ bu ma bu li ma maa eh, ma imaamu kurutu murid néew na bu bu ma dalee ndax ku yàkkamtee yàkkamti te waxtu bi jote ko foofu amut pexe laay gis loolu laay gis te dàkk joo dem nag mu di moom tees na ne dellu contre moom imam boobu ba ñu ubbi ko bismillahi rahmaani rek bëri ñu daal moom daal nañu julli nañu julli nañu julli rek loolu nag fii nag boo yoroon xel di ko seetlu jëf yi kii ubbi ko bismillahi rahmaani rahim ak ñàkk ko ubbi ko mbirum mazhab la du mbirum tariqa gannaaw bismillahi rahmaani rahim bi bàyyi ko taxut sa julli yàqu duggutoo ko taxut sa julli yàqu loo ciy tëkkali la nekk ci biir nag da ngay dem boo jàngee xam ko boo jàngul da ngay daal di rek nangu la topp rek bismillahi rahmaani rahim ku ko wax baax na ku ko wax baax na yëbi limaamu Maalik la yëbi limaamu Saafi soofee la eh, Ahmadu Mandal soofee Abu Hanifata soofee ñëpp maase nañ ñii ne lii la ñii ne lii la ñii ne lii la loolu lépp ñu jël ci moom li may liggéey ko daal ñun ñëpp nañu fexe ba amante kóolute suñu diggante te wàññi lu bari li ko tege it moo di di yéeneente jàmm nag nañu yéeneente jàmm te bañ a yéeneente aw ay saa su ne nañu yéeneente jàmm.